barkeb Serigne Béthio soxna Aida Saliou jëmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te wér soxna Aida Saliou jëmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te wér waaw cuun moom de ñu ngi leen di sant bu baax ñu jóg mukk si di leen sant si dimbali gi ngeen ñu dimbali téye gi ngeen ñu téye boole bi ngeen ñu boole seen biir ba ñu mën a liggéeyal Serigne Béthio si ni ngeen ko bëggee ñu mën a xam ne Serigne Béthio jógu fi tey la fi gën a nekk waaw moom de ñu ngi koy santaat bu baax a baax a baax lii nag dañ koy andi si pour 17 avril bi la Touba Bordeaux jaalibatu maraaxim cofel waaw moo lii moo desoon si lu ñu waroon andi waroon na ëpp lii sax waaye dafa am commande yu ñëwoon pâtisserie yeeg yooyu nekkul woon euh, emballage baaxul woon mënu woon transporter ñu mujjé ko délo mujjé andi li rek waaw mom dé ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax waaw mom si niñ koy tambalé pour présenter len ko rek mom comme ni ngeen ko waxé jamono ñu nekk kii bi jamono covid bi dañu jël def ay portion individuelle waaw si loolu daal lañu taxaw ba def ko waaw moom de euh, vacherie yi fromage yi jël andi nañ ko andi yaourt yi waaw bi vanille la fromage blanc vanille la après mu am euh, café café au lait entier waaw at euh, moom daal sant nañ bu baax tuuti Ah. At ak emmental bi fromage emmental euh, bi yii ay jambon de dinde la donc def si mburu anda ànd ak yëpp yi moom waa Sénégal xam naa ne bëgg nañ ko lool waaw moom daal ñu ngi bu baax waaw mental talla nduru benn bi ñu gis ko portion individuelle yi lépp daal lépp daal pour affaire yi ku si nekk daal sooy di dogu da ngay bi def ko waaw blanc de poulet la am nu dend at eh, kilo boobu ne yaawur yi am na beurre yi tamit ay portion individuelle lañ ko def yooyu fromage ay comme comme euh, beneen marque kii fondu fromage fondu bi kii kiri bi moom la ñu def noonu dañ ko jéem a def variété pour que su nekk daal xam noo koy kiiwee léegi bëri yi tamit portion individuelle la waaw moo nekk aktimeli, moom daal ak timel yi yëpp mënuñu nañ ci andi waaw xam nga ñoom après yeneen ñu waroon ñëw kii DSL DSL dañoo ne ñoom bañ leen contacter délai bi dafa court pour ñëw pour pour andi ko looloo tax waaye ñi ngi bu baax baax waaw moom daal lu def xeeb nañ ko bi moom daal dimbali dimbali ngeen ñu sagal ngeen ñu te teral ngeen ñu it waaw moom de universal da koy wax léegi moom de damay fàttali rek ba ñu nekkee Paris ñoo nekkoon woon Paris waaw parce que mbécco di ñu naan amul étudiant amul dara liggéeyal Serigne Touba rek ngeen dimbali ñu nargal ñu ñu ànd ak sëñ Béthio saayir nekk ak moom mu ñuy dimbali man dama ko yag di wax ba ma doon cof jëf yi di dem dama dem ba xam nga san si yërmaan dem bëgg maa dimbali boobu duma ko fàtte mukk ba ñu toogee Bordeaux man dama doon wax ku wax ma jox sama 50 euros toog aju noppi suñu ne nee 17 avril wala ñu ne màggal ma ne sasu naa benn nag te ku wax ku su nekk rek da ngay wax sa bopp waye ba ñu amir limam bu mu limé jëf ji wax ba yogg ci man sëñ bi dafa tek fa sa baram taxawal nako lolou duma ko nangu nako ki mëna lopp lolou ana mu ne ko mi ngi ne mu wax mu ne mën nga lopp lolou ne ma jox satna la ñett dag magal gogu jox nako nak te bo ba legi mi ngi may dimbali sagal na ma teral ma xamna ni bobu la ma waaw moom daal ñu ngi santaat bu baax a baax waaw mu dimbali ñu boole ñu at sa jëmm ji moom dem nañ ba ñu xam ni ba mu wax ñu Bordeaux ku ko bëgg ku bëgg a liggéeyal Serigne Touba ku bëgg a liggéeyal yow sa jëmm ji lay àndal pour liggéeyal ko loolu du suñu mën-mën du suñu njàmbaar du suñu moom moo ñu ko bëgg a dimbali wutuñu ko it sàq wuñ ko it. ñun si mbéj rek lañ bëgg bam ñu jëlé teg ñu sa loxo ba légui xamuñ ci won dara ba légui ni xamuñu lepp waye lu mu dédé ñam nañ ci tuti tane li naan la saf ko ma ci xam fu mu toll ni man de xawma kan de yenen leneen yit man lu mu nekk ni gënal na ma leneen lu ma gis wala mo xam ku gëneen gis feneen li nga gën jël propagande ma yit wutuma nimbal wutuma andal man luma ne luma gis xamna ko li ngeen ma dimbali xamna ko doy ma waaw ba tax na ngeen dimbali ma boole ma ci dara ji nga xamantene ñepp seigne sëñ Béthio bëgg seigne de Bordeaux léeg sax émission bi su amee des fois da ngay gis sax wax ji sax day xaw a des fois ñagas waaye du lenn du dul vi dire vers l'excellence loolu ma sant bu baax parce que koo xamante ne nit nit la rek li ngay joganteeg mbooloo bi di nga jël sa mbokk taalibe yi ngeen di jongante ngeen di jàkkaarloo di waxante di defante ba nga xamante ne sa taalibe du mën a gim sa taalibe di tàq saa su ne loolu yombul si jamono ji ñu ne ak bitim réew gu ñu ne moo tax ñun de suñuy waajur dañ leen amal ab cant dañ leen amal njukkal du suñu ndey du suñu bàyyi mënoon nañ def lu ñu neex jaar fu ñu neex te duñ ko xam te duñ ko yëg waaye ngeen dimbali ñu bañu ñu rusa def yenn yi ngeen dimbulu ba ñu jomm def yenn yi man de barki dem la ko doon wax dina pap jax rek la ko doon man ma at at dinaay Babacar Fall ma ne euh, man de jomuna def yi wala ñu gis ma seen yi du ciagir ni man la ñuy wax man sa man man man man garaawul waaye ne man dañu ne taalibe Soxna da ah, loolu rek warna tax ma rusa def yenn yi wala nit romb ma gis ma ci yenn condition yi wa di sante bu baax ngeen dimbali fu ñu nek ane da kay wax man da ngeen ma dimbali ane Europe dañ ma jangalo am papa japon na ni sax ba dem mën nañu rëccale rawalé ci seigne Béthio jobu ñu France waye xamul ni fa la gëna a fa la gëna a ngeen dimbali ñu ñu nek chef d'entreprise di employé ay nit ay tubab taxi nek nit ku ñuul jalousie bi bari fa da ngay dem ba xamni sax nit ku ñuul gi nga nek sax ça pose problème waye des fois duñ ci mu dara ngeen dimbali ñu ba société sama kay wax société bu ñu mujjé créer ba ñen ku bëggé wax sax xam nga lu gëna neex moy and ak nit gars dañuy yaakaar ñu bari dag ñuy jëriñoo waye barki Serigne Touba serigne mbete rajo sedde suñu xamone fi ñu jëmee li ñuy diggal li ñuy wax man des fois damay tok mané man suma la jotté lu ma xalat bo xam raw rombu ku am ku la kay def nga wara sante ku wara am ku lay teg si di la né defal li fonkal say wajur fonkal say li defal rusal def li defal li fonkal sa njabot loolu lu neew la ci jamono ji amul. foo mënta dem dañuy jëriñoo waaye man de sant naa bu baax ba nga doonee sama sëriñ rusuma koo wax te ragalu ma ko yit wax fenn ku may bëgg dama bëgg si loolu ku bañ na ma bañ si loolu man yaay sama sëriñ waaw barki sëriñ Touba man moom aw ma lu ma si ragal te lu may ñaan rek mooy ngeen dimbali ma ba téyal ma seen bopp li ngeen bëgg si man ngeen am ko yéen ni ngeen ko bëggee pas man ni ma ko bëggee man lo lay ñaan sa su ne gën dimbali ma ma gore sama digënté gën lo lay ñaan waaw mom dal ñi ngi santat bu baax tu waaw mom dal man sama xol dafa fess barki Serigne Touba man mënuma wax ci mbolo man gisuma luma leen jëfël wala luma leen waxal ba des fois sa damay to damay rouss damay kersa ngay wax wala di leen wo di leen wax di leen wax yeen yi di leen wax ki man de sama yene moy sa su ne ngeen tok di ñu dégg si lu baax di dégg lu rafet di ñu dégg jam lu len noppal leen sama yene ta loolu la bëgg fofu la bëgg dox waaw ngeen dimbali ñu ñu and ak encore daara ji amir limamu di sante bu baax waaw ak ñok daara ji ma particulièrement booleeg universel mustafa gay ñu bokk société bokk liggéey nek associé mom ba ngeen ñu ko ba légui société bi moom moom mu ngi dox contrat yaa ngi taw da ngay dem ba si sax di déposé appel d'offre barki Serigne Saliou nga luppe appel d'offre bi ñu woo la ne la annulé nañ appel d'offre bi infructueuse pour nga mën a déposer waat barki Serigne Saliou loolu yéen rek la barki Serigne Touba santaat nañ bu baax mu ngi sant bu baax cuun man de sant naa bu baax a baax ngeen dimbali ma rek ma gën a sax seen keppaar bi gën a nekk barki seen loolu rek lay ñaan gën leen mën a jëfal gën leen mën a liggéeyal li ngeen bëgg ma ne si leneen nag loolu bëggul man dum ko tudd ñu bañ ma cee gis waaw man de loolu lay ñaan waaw di la ñaanal nga yàgg fi loolu sa jëmm ji di la ñaanal nga yàgg fi loolu cuun sa jëmm ji